waajur sa waajur nu mu tudd. Euh, sëñ Ndiaye la tudd. sëñ Ndiaye. waaw wax waaye loolu sax amee man sama tour ak ak ak ki moom kii bi nu mu tudd am na importance lii am importance daal mooy. Mm-hmm. dañu am suñu terrain lu yàgg. Mm-hmm. mais comme que yàgg na am nga léegi mais saa yu ñëwee bëgg tàmbali am nañ suñu këyit xam nga Sénégal état de droit la. Mm-hmm. biir yow yaakaar naa boo jógee ba nga xamante ni war nga yëkkati benn benn suuf ci lu toll ni tarafal ay ne nga naan da ngay liggéey dara gouvernement bi Sénégal état de droit lañ def di nga ñëw présenter say say si nga génn say kayit nga war a am ba pare fi nekkuñu gi dëkk boo xamante ni du Sénégal yaakaar na démocratique fi la fi la fi boor fi la ëppee euh, dañoo am suñu lotissement depuis longtemps ñu ëpp na dix ans saa ñu war a liggéey mu am coow ñu mais kon kay Sénégal dëkku maslaa la ñuy waxtaan ak ñi fi dëkk buñ demee ba war a waxtaan ba ñu oh, oh, léegi nañu vérifier kayit yi fekk njëkk nañ commencé ñëw di liggéey bi ñu ñu ba commencé xale yi fi nekk ñëw di sànni xeer ay xale lañ amul problème ñu xam ni rek euh, dañoo desee am lu leen leer léegi biñ ñëwooy tàmbali ñuy sànni xeer ñu arrêté préfet bi nga xam mooy kilifa bu géejawaay wooñu euh, laaj ñu suñu papier ñu établir yëpp bépp papier boo xam ne war nañ ko am am nañ ñëw nañ toog convoqué nañ ndax mooy kilifa département bi ñu indi suñu papier wan ko léegi ñi doon sànni xeer ak ñi fi dëkk daan ni ñu bëgg a xam mooy est-ce am nañ papier préfet laaj leen ni leen ndax bu ñu génnee seen papier yu leer ndax du ngeen ci génn ñu ne effectivement bu papier yu papier yu leeree dinañ ci ñu convoqué ñu ñoom ñu toog ñu ñu toog euh, préfet bi convoqué directrice départementale bu Guédiawaye ñu ko papier yi terrain baa ngi nii xoolal lépp lu ci war ak fépp mu war a jaar ndax jaar na fa ba pare kooku def li mu war a def daal di jël rapport am jot ni kayit lépp lum mu war a yemm na jox ko mu leer seen bopp. ñu leen sax ñoom ñoo waxoon bu leeree ñoom ñu génn ndax ñoom bëgguñu tool. li ñu jaaxal mooy acte trois de la décentralisation ginnaaw bi ñu génnee maire moom na droit jox leen suuf te acte sa déedéet ça va xam nga acte trois waxul loo xam ne moom nga ko depuis vingt ans wala trente ans ndax loo xam ne dañu jox bàyyi buñ moom la depuis ëpp na vingt ans. yaa ngi dégg famille bu ñuy wax xile jéy léegi famille bu ñuy wax xile jéy ñoo ko moomoon jaay ñu ko depuis vingt ans loolu acte trois bokkul yow sa kër gi nga bokk ñaan ndax mairie moo jox ou pas loolu yaakaar naa sa liggéey la war nga koo xam ñun daal l'essentiel am ñu war a am mais da nekkul loo moom rek doxee ci nu la neex Sénégal réew teraanga la ñëw nañ di naxanteeg ñoom di leen maslaa bu ñëwee suñu papier ñu wan leen pendant dix ans ñu ngi tey tey suba tey suba tey suba mais loolu gis ne nag am am na fu mu war a yem Sénégal na comme que euh, ñi fi nekk réew mi état de droit lañ yoon lañ fi nekkal waaw ñu buñ ñu demee ba nga xam ne war nañ pare te bëgguñu coow ñu jël service sécurité bu ndax bëgguñu coow coow la ñuy bañ rek du bëggu coow parce que kenn ku ne li nga moom kër gi nga dëkk am nga droit tabax ko nu mu la neexee te bañ a lor ñun nag fii ñuy fii ñuy denk di terrasse ñoo ko moom loolu kese la lu leneen euh, non ñun ñëpp ñun ñëpp toog nañ non non ëpp na loolu ëpp na un presque mën na neuf mois ñoom ñooy seen kilifa yi dëkk fii mm-hmm. gisoo leen fii parce que xam nañ li ñu leen war a lan ngeen lu ñu jàpp mooy dañoo ñoom dajaloo ñëw laaj ñu ni nañu xool papier yi ba xam normal na. Mhm. ñoom ci boppam wan nañ leen papier yi yëpp lu normal la xam nañ loolu moom féete na boor léegi ñuy waxtaan ni nañ leen bàyyi espace vert. amul benn problème prévoir nañ espace vert bi nga xam ne bu ñu bëggee def seen i jardin wala seen i jàng wala lu ñu bëgg def nañ ko fa def mais nag nit ki nag nañu waxante dëgg mënul jël alal moom pendant vingt ans quinze ans mu toog si war ko defar saa yi booree defar ñu ni bàyyi ko fi te yow nga tabax sa kër ba mu baax moom mu soxla soxla terrain war ko tabax yor këyit yi nga yor wala mu gën laa wóor këyit nga ni doo du fi amee loolu nag bu boobu loolu moom bu demee bu ñu bàyyee noonu day mel ni dëkk bi amatul yoon wax dëgg yàlla da nga am say àq ak say yelleef te li nga moom kenn ku ne am nga droit jëfandikoo. loolu rek ndax laaj tàmbali maire bi yëg na ne yéen a ñëw. bépp non lépp non déggoo li ma la wax Sénégal dëkk bu organ même ñun bu ñu yëglewul woon dama bëgg nga xam ne Sénégal mooy dëkk bi. mu ne moom yëgul woon lii dafa. non non ba déedéet moo leen wax loolu. moo leen wax maire commune bi moo leen wax loolu non déedéet yëg na ko sax yëg na ko mais xam nga Sénégal rek xam nga dëkk xam nga politiciens yi léeg-léeg da nga si gis ñoo xam ne dañuy xarom ñëw fii mënuñu fa yëkkati dara ko Euh, préfet yëgu ko mairie yëgu ko mairie bi mooy ñoom ñëpp yëg nañ li ñu war a yëg. non te kilifa yi non non. amul coow sax dèjà fii amul coow xam nga ni ngeen def ñu da ngeen daa am coow. amul coow ndax même xale yi ñenn ñi fi doon non non non du ñoom déjà ñoom ñun yow lii yow laa par exemple ma wax la leen nuñ buñ nëbbante mën nga jël sa alal bàyyi ko fenn dama koy soxla dama koy bàyyi kii ba keroog ba ba keroog ma koy soxla bis boo ko soxlaa nga mën ko jëfandikoo waaye léegi bu fekkee yow da nga ko soxla ñun la déedéet doo ko fi def parce que ñun ay terrain vétéran lañ mais terrain vétéran d'accord am wala mais nañ nag nañ dem xool lu nguur gi moom ñu dem si terrain vétéran mais mënoo jël si tiir tiru nañu waxante dëgg loolu yarul maanaa. ndax bi la jaay bi la bi la jaay terrain bi papier yooyu yëpp. non dama la wax loolu yàgg na loolu yàgg papier yu leer déggoo li ma la wax ñeem bu ñu amul woon papier ñun bala ma leen commencé Sénégal muy dëkk bu bi gën a sensible ci wàllu suuf bala nga fee laal dara lépp kii di nga ko war a am doog a doog ko laal yor nañ suñu kayit yëpp non non te du tey yàgg na mais xam nga kon ki ñun ak ñoom a dëkk ñun ñii ñëpp ay xarit lañ ñun ñoom dèjà ñu fi lañ dëkk ñun ñoom ñii kaas ñun ak ñoom ñoo dëkk loolu laa ba ngeen xam ko. kon mais non fi lañ dëkk ñun fi lañ dëkk suñu frère rek ñun ñëpp ñu ñu ne ñu ne ñoom ñi ñëpp ay bokk lañ xam nga ma loolu rek du ay nekkul ay affaire jàmbur mais nag kon ke ñu ne ñoom a dëkk maslaa bi moo waral mu am 10 ans. léegi suñu laaj bu ñu jëm ci chantier bi ndax chantier bi yéen mën ngeen koo tabaxee nii chaque jour ngeen mobiliser lu tolloog euh, ci police bi tool ñun daal dañuy def suñu liggéey lu mu war rek lépp loo xam ne droit may nañu ko ay yoon may ñu ko rek loolu la ñuy def ndax wax dëgg yàlla dëkk bi li ma la wax rek ñun ak ñoom ay mbokk lañ soo lii sax gën a luñu waaw mais coow bu am solo tam ndax kilifa yi nga xam ñoo leen jur ñi nga xam ñoo leen yi ñu ñëwee ñu ci seen papier dañ ñu yeggale leen seen liggéey ñun duñ tooñ xale yi ndaw nag xam nga xale deretu xale day jël fii chef de quartier. Hmm. ay kilifa laa fi jël. Hmm. démb fii ah ñoom ñoo xam ne mooy am ñoom terrain bi ñoom tamit. li nga wax ni moom yëgun ci ñun. ñu ni ñu ni. ñu ne ñoom yëgun ci ñun. de quartier. jël yi daa jox xam wax lu la neex daa yomb. Hmm. ñom seen kilifa yi laa préfet convoqué la ñun ñun ñu convoqué ñu tok préfecture. man suma dégg ñu bu ñu leen laajee ñoo xam ne ñoom xam nga seen problème. Mm. li lan mo nek seen problème la ma jaaxal yow nit ki moom ni nga momé sa kër la nit ki momé terrain war ko jëfandikoo nga ni indi papier indi nañ papier ñoo ñëpp gis nañ ko ñu ne amu benn problème paré nañ ci seen kilifa yi loolu la wax. kon bu ñu ñëwaatee fii non amul solo parce que xale yi fi nekk ay xale lañ ne xale day yor day yor xale ay xale ay xale.